dikkati naa tey Sénégal a ngay màggal ki gën ñëpp di màggal yu te yàlla Muhammad ma nga xam ne tànnee fu borom bi la diggante Kaolack turbine yéen kaay naan man dem Tiwaawan Ndakaaru Yoof ji Jinaan ñëpp ngay màggal yonent yàlla Muhammad ni ki tey mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci jaam yi naan kon yow Muhammad damal ma ci jaam yi waxal ma leen ne leen yaa leen gën te ku ma sàkkit man subhaanahu wa taala maa ngi ko sàkk ngir yow lanket ko di jee naan man doomu Abdallah ja tey la gane woon àdduna ñu koy màggal ci Sénégal di nabi le soleil yéene kaay naan kon mawlidu nabi ku ko wax sa xel dem ci Maodo moom Cheikh Sidi Hadji Malick Sy tax na ba ku ne gàmmu sa xel daal di dem ca Tiwaawan di Quotidien nan koon ren jii day Tiwaawan soo moytuwul dina dalal loo xam ne mësu koo dalal ci gan ndax réew mépp àndandoo riir fa ngir màggal mawlidu nabi bi yor yor yéene kaay naan man buñ fa demee fekk fa dëkk goo xam ne dëkkub diine la dëkkub jaamu yàlla la dëkkub Maodo boo xam ne daanaka amul dara muy nag ci lu jëm daan daanaka dafa samp waaye ma ne la assainissement amul Tiwaawan bu dee wàllub secondaire la xale yay jàng ña nga tumranke ndaw yaa mu ñu xëy wér-gu-yaram moom daanaka moom ci boppam moo wopp ca Tiwaawan Le Soleil yéene kaay naan kon terewul moom dëkkub Maodo boobee ña ngay sàbbal fu ñu toll borom bi subhaanahu wataala taala di màggal di julli fu ñu toll ci gën di mindeef alayhi salaatu wa salaam L'Observateur naan moom la yàlla yónni ci jaam ñi tey jii ñuy màggal guddig mawlitu nabi guddi ga nga xam ne moom la gën di mindeef gane naan kon umma ci boppam ñooy màggal gën di mindeef l'évidence yéen kaay naan kon xel dem ci El Hadji Maodo Malick loo bëgg xam ci yoneen yëral ay téeréem xel demit ci Baye Niass ak fayda ba ba nga xam ni xoolam ak jëmmam yëpp moom Baye def ko jébbal gën gi mindeef l'indépendant yéen kaay naan kon kër El Hadji njegéen day ña nga ca gàmmu ga ñoom it di ko waajal waxtu woowu sëriñ Mansour Cissé xalif général bu pir day daal di làqu ni ki démb le point actu di ñu xam le El Hadji Pedre Diop mu xaddamu sëriñ Babacar le regard naan naan fi mu ne senegal de koo xar xolam yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga cay fekk tey ji ñuy màggal gane àddinaam moom gën di mindeef diggante Tiwaawan Medina Baay lew na ak Cenaba ñuy màggal ki gën ñëpp turbine yéen a kaay naan kon ba ci yoof gii ñu ngi màggal tey jii ki nga xam ni moo weexoon démb suur so a naan kon waxtu woow ñu ngi màggal ni ki démb day batalo joolaa ñaar fukkat ak benn bi mu suuxee ci ren gaayey kaas yéen kaay bi naan man état bi lu bëri ci doléance ñi nga xam ne sàkku woon nañ ko moom état bi daal koy matale tribune naan kon waaye ba tey senegale yi ma ni la amulu génn ak njàngat goo xam ne def nañ ko ci suuxu batalo Joola yéen kaayib des média bi naan man fi mu ne day xale yi nga xam ne ñoo jëloon yoonu Nicaragua gi niki noonu gaal gi soo moytuwul daañu dil siwaat ëllëg moom ñaari téeméer ñeen fukk ak juróom ñaar ci sénégalais daañu leen takkali bagage ñu daal di ñibbisiwaat l'enquête quotidien naan fi mu ne Europe day waxtaan ak ay xaritam yi nekk ci denduk Afrique mel ni ku leen di neexal ngir ñu jëlaat seen doom yi nga xam ne dugg nañ fa jaaree ci gaal gi sursoi naan man léegi kay sénégalais dafa gën a metti ci ñoom ñoom ndax boo demee sàkku demande bu buñ la ko lankalee daanaka ñetti million ak juróom fukki ni daanaka génn ci sa gafa daal di koy joxe ñu daal di lay delloo si si réew mi muy loo xam ni ñaar fukki fan ak benn ci weeru mbar biir lañ ko daal di xaatim muy buñ la téyee seen logement yooyee lekk ak naan baak fay ba léegi laataa ñu laa delloo sëg réew dañ la koy fayeeku turbine naan man balaa ngaa dem waxal ci buteeyu gaz yi nga xam ne daanaka mi ngi bëgg tukkil réew mi am na geneenu njaboot goo xam ne tuuti ñu faatu te buteeyu gaz moo ko waral liggéey média bi naan maan gaa yaa ngay samp seen dënd moom président ki Sall di leen woolu benn par benn ngir wax ak ñoom naan leen attention ndënd yi ngeen samp dellu leen ci ginnaaw lu ko may ma dal seen kaw ña nga xam ne ñoo samp naan président Macky Sall defuñu ko tey defuñu ko ëllëg gaa ya nag fas yéene jaamaarloo ak Amadou Ba Boun Abdallah Dionne Aly nguy Ndiaye maam booy Diao ne lii ñu jël dogal duñ ci dellu ginnaaw leen fa yéene kaay naan maan moom Mame Boye Diao day ma ngay lu xart nag jafe-jafey yi jëm ci suñu institution suñu yoon civil ak i ndawam maam booy naan jafe-jafe yii laa bëgg sénégalais tàqalikook ñoom moo tax ma sampum dënd le point yéene kaay naan maan Cheikh Thiam ca Ndofane daal ma nga naan Amadou Bala vox populi naan maan Idrissa Seck moom ma nga naan ila présidentielle rek noppi naa waaye sama cell gi ci xalaat la ci nu ma jëmalee kanam réew mi idi naan samp naa samam dënd Walf Quotidien naan maan benn Bokk Yaakaar ma ngay xar ñaar fi mu ne nag allié fu ñu toll laa bëgg a xam sursu a naan la nga war a moom moo di Ousmane Sonko fu mu toll ndax gaa yaa ngay rumbandaat naan ma nga war a delluwaat moom Ousmane Sonko ci kasob sébi xotaan bi te waxtu wan ko delloo kaso day baaxul ndax Ousmane Sonko mi ngi ci yoon ngir am lu toll ci ñaari millions ak téeméeri junni ci signature vox populi naan man parrainage yooyee de moo nar a xar Pastef ñaar ndax na ko ndakaaru bëggee ak na ko gaayu Pastef yenn yi bëggee du benn lu ci mënti amit parrainage bi tàmbali na tey gaayu Pastef yi soobu ci tey ne taw ak a ci yam kenn mënta wax ma ne la ba ñoom duñu parrainé Ousmane Sonko réew mi ko di jee man boobu Sénégal ak kum ndawam ñi ngi tàbbi ci géejug yàq yàqu goo xam ni maa day taali léegi moom héroïne daanaka ak cocaïne cannabis volet moom la xale yi di ndékkee di ko añee ña ngay tàmbalee ca cigarette ak chicha te lii ñi ngi koy tàmbalee ca l'école ba daal di daanu ci xeetu sinabar yoo xam ni fi mu ne mi ngi leen di tàqaleeg seen sago bu leen faatul libération naan man am fit baraw waa ji ma ne la mësta am ci réew mi ci booru direction des passeports la ko sûreté urbaine jàppee ña ngi ko fekk ak registre yu ak de naissance b état civil bu ville bu Touba waaja daal ma ne la ca pegg ga lay taxaw di jaay ay extrait de naissance ña ngi ko fekk ak ñetti passeport fekk ko ak juróom-ñaari carte nationale te yoo xam ne yeneeni nit ñoo ko moomoon ak lu mënti am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm di leen ñaanal mbokk yi gàmmu jàmm gàmmu gi foofee ëpp na téeméeri at ñu koy fàttaliku ba tey boo fa demee nag lëm ci li nga xam ne mooy waru daluwaay yi ñu ngi koy organiser nga xam ne ku fa dikk da nga am foo dal te nag loo lekk wala loo jëfandikoo du la sonal ñu ànd la Seex Abdoul Aziz Sow mawlid bi ci dëkk Maam Maodo Malick Sy bile fu ne la taalibe yi jóge ngir amal fi mawlid bi dal yi nekk ci wàccaay li fu ne ñu amal fa ay tànt file moo di fiefu action daara ji muy dal organisé wu torop nga xam ne ñoo pour wàllu liggéey ah dañ leen séddale si ay pàcc bon jigéen ñi féete si benn fànn góor ñi feeñ si benn fànn bon am na benn kuréel bi ñu wax ne kuréelu administratif ñoom tamit ñoom ñooy seetlu si ñooy saytu ñi fiy ñëw ñëpp ku si nekk ñu wax la fa nga war a féete ak kaaraange fidèles yi ki noonu lépp lu jëm ci bernde gi mu ngi fi suñuy cër si gàmmu gi togg xéwal jox nit ñuy lekk kese la na nit ñi ndékk na nit ñi añ na nit ñi reer yaa xam jaaykat nga yaa xam da ñëw ngir bis bi lal si biti wala toog si kaw tali bi di seetaan dinañ la fekk fa nga nekk servi la. ay bernde yu neex lañu fi amal ngir ñi fiy daal waaye itam fépp fu taalibe nekk ñu fekk la fa berndeel la. ngir dem Tivaouane am na ñoo xam ne jëluñu woto terrain la ñu jël eh, loole nag rawatina terrain ba nga xam ne mu ngay jaabante Thiès eh, Tivaouane Euh, nee nañ nag mbégte la ndax nag euh, boo jëlee tali bi embouteillage yi metti ne lool tar na kon nag terrain bi yombalal na leen ko euh, Pierre Claver Pouy Mbeytaal Xuma ñoom it ña nga ca terrain ba. li ci màggalu Touba train bi ñu tegaat ko ci raay bi ci gàmmu Tiwaawoon gilee ñetti yoon lay jógee cees ci bés bi jubali Tiwaawoon na mu nekk nag mbégte bu mag ngir nit ñi lee ku dul cheminot sax war nga cee bég te kontaan ci ndaxte chemin de fer dafa nekk loo xam ne nii réew mu mu amul rek du dox ndax mooy base du développement daanaka plus rapide doo fi nekk di buuxante doo fi nekk yooyu yëpp la sonal macha allah am na sécurité da yóbbu ba biir Tiwaawoon nañ ko torop torop ndax ñun waa Thiès rek la xam chemin de fer la ñu xam suñuy doom ak suñuy jëkkër ak suñuy papa ak ñëpp ci la liggéey kon boog bu ko bu ñu ko dekkalee daal day dañuy kontaan daal. ci biir train bi takk der yi bëri fa lool ngir kaaraange ñu nekk ci biira prix première classe ñu ngi koy def mille cinq cent deuxième classe mille francs la gendarmerie kañ ñu ngi accompagné depuis le début ak euh, police euh, dem bi matul sax une heure de temps quarante cinq bi am na lépp ci biira. Euh, ak environnement loolu moo tax on a pris toutes les dispositions sur le plan de l'hygiène mais également sur le plan sanitaire en tant que tel pour que nit ñi mën a nekk ci jàmm. ñi nga xamante ne ñoo jël train bi jógee Thiès dem Tivaouane di ñaan autorités yi nag ñu wéyal liggéey bi ginnaaw gàmmu gi wala sax ñu yaatal ko ci yeneen gox yi nekk ci biir Sénégal. laata ñu waxtaanee délégation yooyu jaabante foofee sa euh, Tivaouane ndax Medina Baye euh, ñu gis ne terrain bu fekkee daw na dana xala oyofal wàllu dem beek dikk bi surtout que rawatina ñii di jóge fii nga xam ne euh, tali bi dafay xat lool da ngay def ay waxtu ngir mën a yegg. xam nga ma Mbaye terrain dafa bokk ci Sénégal. train également bokk ci sunuy ay événements religieux mm-hmm. parce que gisoon nañ ko également ci màggalu Touba fexe nañu ba train bi géejoon daw depuis 2017 dawaat na ren ji donc loolu def naa effort bu rëy la 2017 xaw ma 2007 euh, Tiwaawoon bi également commencé waat nañ ko yàlla na continuer parce que je pense que après phase gàmmu gi dina am prolongement sur beneen axe notamment di war a jëm côté Tambacounda te bu ñu yeggee Tambacounda war nañu mën a yegg Mali donc chemin de fer mi ngi ci processus boobee mi ngi ci ay initiative yooyu nga xam ne da ciy baax train bi nag bu dee daw na nii Euh, dégg nga témoignage yi nga xam ne moom lañ ci dégg nit ñi coono tali bi wàññil na leen ko parce que train moom amul embouteillage boo xesee ba toog da ngay euh, départ yegg amul embouteillage bu bëri amul dara lu lay gàllankoor en tout cas ci kaw tali bi euh, ci kaw ci kaw raay bi donc loolu dafa am solo pour nit ñi di gën a mën a gaaw a dem jàbbante trois fois dans la journée diggante Tivaouane Thiès defe naa lu am solo la même bu dee buy jógee Tivaouane dafay xaw vide mais l' essentiel est que na nit ñi tàmmaat train bi parce que lu ci amaam solo la ñu bëree ngi jël tali bi amaana yëguñu woon ne sax train bi commencé na mais ak nii xëy na euh, yëf yi dina gën a ñoŋ yëf yi dina gën a tane parce que tamit moyen de transport la boo xam ne wóor na moyen de transport la boo xam ne tam gaaw na moyen de transport la boo xam ne tam c'est assez confortable parce que boo gisee confort bi nga xam ne def nañ ko ci biir toilette yeeg ventilation bi et cetera et cetera da xam ne ñoom am nañu envie peut-être pour defar lu baax loo xam ne askan wi dina ko mën a jëriñoo parce que TER bi il faut le rappeler mënu fi nekk moom dong euh, nekk peut-être euh, benn affaire waa Dakar nekk benn affaire standing boo xam ne xaw na élevé quand ci qualité de service train bi war fee nekk également ñu koy bàyyi ci yenn conditions yi kon nañu gën a defaraat train bi gën ko ressusciter gën ko tàmmal nit ñi rotation yi gën di bëri nit ñi gën ko tàmm pour wàññi justement effet bi nga xam ne moom lay def ci tali bi loolu da ci am solo man en tout cas maa ngi leen di encourager ci jamonoy ga gàmmu gi également gis nga sécurité bi nga xam ne moom lañu ci def parce que à mm-hmm. bord de chaque wagon également y a des agents de sécurité yoo xam ne ñoom ñooy veiller la sécurité te surcharge amul amul yéeg ci kaw amul yéeg ci fenn place yaa ngi ci biir ñëpp ci biir la ñuy toog te loolu defe naa garantie la pour sécurité euh, routière. alors Mamadou Fofana sa Tivaouane la ñuy dese ni ba tey ak délégation yi nga xam ne waaye politique yi ñoom ñoo ko jiite ña nga fa moo xam euh, ab délégation bu coalition. bu pare ci opposition bi di Yewwi Askan Wi démb ña nga fa woon xalifa général euh, bu Tijaani Sëriñ Babacar Sy Mansour dalal na leen euh, foofee nag jot nañ fa yëkkati ay kàddu yu jàmbat euh, dal di ko koy dénk lu ci mel ni kon kaaw Ousmane Sonko ba nga xam ne dañoo jàpp ne dañu ko jaay doole ngir mu bañ a bokk ci l'élection Habib si moo jiite woon délégation ba ay kàddoom la ca jiitu mooy nekkeen wi nga xam ne suñu doomu ndey Ousmane Sonko nekkee na ko te bés bi bañu àndee ba léegi mi ngi koy soog a rate te li ko ko teg du dara lu may bëgg réew mi Sénégal moom boppam li nga xam ne moom moo fi nekk ba léegi ñuy wéeru ci bitim réew te war a mën a téye li ñu moom léegi réunion sax mënatuñ koo def bu buñ fa wootee ne day point de presse sax Macky Sall yónnee ñu les force de défense et de de de sécurité. bu ñu demee siège pur bu Serigne Moustapha mu def la même chose waaw loolu nag ba kañ. keneen ku dem euh, di dem seeti ji euh, wala ku dem ziyaara ji jëm ci wàccaayug euh, gàmmu gi moo di Idrissa Seck moom it samp na doon dem ci présidentielle yi ñu dëgmal ka ko dalal moom moo di Serigne bay si Abdou si turu xalif général kullu Tidiane moom moomee sàkku na ay ñaan ngir nag réew mi ak dal daal di fii am te la nga xam ne moo yëngal réew yi dend ndooy mu bañ ñoo dal ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci réewum Sénégal ay kàddu la yu mu dénk Ndeye Khady Diouf Afrique yëngu na sous région bi ñu nekkee yëngu na mais yàlla mu ngi defal Sénégal sutura mu ngi ciy mucc ba léegi loolu nag ñaanu mag ñu baax ñi mais aussi maturité peuple sénégalais moo ñu ko may donc loolu na ñëpp góorgóorlu pour que mu bañ a yàqu surtout en direction des échéances yi ñu jëm et weccoo lenge yi jóge ci ñi fi nekk actuellement ñëw ci ñeneen que loolu mën a am ci jàmm mën a am ci dal benn violence bañ ci am benn bant bañ ci dam xele ngay sax moom président Macky Sall démb mi ngi woon euh, sa Medina Baye xalif général ba Serigne Cheikh Maye Niass daal di koy dalal mu nekk ab occasion ngir mu tàggatox moom ba noppi it euh, sàkku ak ñaan fii ci réewum Sénégal ngir ak dal daal di fi am la xew ci yenn réew yi bañ ñoo dal Macky Sall ay kàddoom ñu teewlu ko. sa soppe moo fi ñëw sa taalibe sa xarit di la ziare si di la tàggatoo si di la dënk it sama njaboot gii di ñu ma àndal ma benn bokk yaakaar parce que nit tam li lay yëkkati léeg-léeg donc si ñambaasaale wax ko mu leer waaw ndax bëgg nee nañu am na waaye gën a bëgg am na kon ñooñu ànd ak man ma leen di sant di leen gërëm rawatina waa Kaolack kon ñoom ñooñu sëriñ bi laa bëgg vraiment dënk ñoomit it ñu góorgóorlu nekk benn ku ne fàtte sa bopp te xool réew mi xool président ku nekk fàtte sa bopp ànd joxante loxo ngir fii ñu jëm Sénégal mën koo dépasser parce que man li li si doon sama wareef def naa ko pour Sénégal jàll si jàmm li ci des nag mooy ñu góorgóorlu ba fexe jàppale boor bi nga xam ne boo leen leen jàppale xam ngeen ne yoon bii duñ ko wàcc di dugg ci ay yeneen waaw te risques yi nag bëri na ndax li ñu wër moom yàlla rek a xam mais li ñu wër bu ñu ñaan yàlla mu gaaw dugg ci réew mi waaw loolu nag li koy li koy li koy bloqué mooy ñu taxaw góorgóorlu jàppalante joxante loxo. monsieur le président ñëw nga ñu ngi lay kon ñu ngi lay ñu ngi lay. tatagal ak mbégte ñu ngi lay tatagal ak kontaan gis suñ président de la république man gis suma président rek doon na may xaaruma yeneen waaw gis nañ suñ président ñëw na toog suñ biir kenn ci ñu ñu yëg ko mu yëg ñu ñu xam nag fi mu ñu fare comme ni ko Mahi Cissé waxee boo gisee président dangay foog ne lu yomb la mais lu jafe la xam na ak ku manqué nelaw la ku manqué lekk ku manqué jot la ku bëri bopp buy métti la xam.